الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير بشري ومعلم الدهر وإمامهم جنا وإنسا سيد الأولين والآخرين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 فموضوعنا اليوم إن شاء الله هو اتحاد والقوة التسامح وتعايش في الدين معناه في أرض الله سبحانه قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تزكى أيها المسلم أنك ولدت باكيا والناس يضحكون فاعمل صالحا لم تموت ضاحكا والناس يبكون فالإنسان يغرق نفسه في العمل الخير لينقذه من ثلاثة مشاكل أولا الملل ثم الرسيل ثم الفقر قال مصطفى صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وقال سيدنا علي كرم الله وجهه لو كان الفقر شخص لقتلته وقال ابن القيم الجوزي رضي الله عنه كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم واللسانه يقري في أعراض الناس في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر وأتوب إليه إنه هو تواب رحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وهو إمام الإنس والجن وأفضل خلق الله سبحانه بقي نيجي سنتر يالله سبحانه وتعالى di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo gën ci li yàlla bind waaye mooy imaamul jinn wal ins moom la yàlla tànnal boppam defal ko boppam jegle ko boppam jox ko lim ko jox muy alquranu karim jox ko gën ci diine muy gën diine yonte yàlla diine islam diine islam di ko gërëm loolu di ko sant di gërëm mboolem saxaabaam yi rawatina Abu Bakrin wa Omar Usman Ali radiyallahu anhum ak mbooleem saxaaba yëpp nag ak mbooleem julit di leen gërëm leen sant di ñaanal jàmm mbokk yi xutba gi tey mu ngi ko teg ci eh, al ittihaad mooy bennoo jàppante bennoo ak mbokkoo jàmmalante ndax ñu mën dëkk ci jàmm yàlla defar suufam ci ba mbaax mën nañu dem leen dëkk fa ci jàmm yàlla moomam li fi nekk mu ne dem leen dëkk fa ci jàmm yàlla nañ jàmm nañ jàmm mbokk yàlla nee na innamal mu'minuna ixwa mbokk yi julli yi ay mbokk lañ innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum wa taqullaha laallakum turhamun yàlla nee na yéen julli yëpp ay mbokk ngeen na ngeen defaraat mbokk gi na ngeen jàppante dimbalante te yàlla tax képp ku soxla dañ ko jàpp te yàlla tax ku bugg ku am soxla dañ ko taxaw dimbale ko te yàlla tax buñ nangoo seetaan mukk julit julit du seetaan mbokkam julitam ku am soxla nañ taxaw dimbale ko ndem la mu bugg lu baax la yàlla nee naa taawanu ala birri wa taqwa dimbalante leen ci jàmm lu baax ci ala birr mooy lépp lu baax nga dimbale si nit wa taqwa nga dimbale ko mu moytu lépp lu bon bon dañ dimbale ci lu baax waaye ñu moytu wante dimbalal ci lu bon bon yàlla nee na taawanu alal bismi wal birri wa taqwa wala taawanu alal bi nee na sala saam nee na innamal mu'minuuna ixwa mbokk yi jullit yi ay mbokk lañ al muslimu axul muslim jullit jullit ay mbokkam na ko dimbale ak lu mën a doon yonent yàlla Muhammad sala saam nee sababul muslimu suuxun saaga julit ak caay-caay la koo xam day saaga julit ak saay ab saay-saay nga sababul muslim fu suuq ku saaga julit saay-saay nga wa qitalu kufrun ku ko rey xéefér nga yàlla nee na man xasala mumina mutaamidan fa jasaahu jahannam koo xam ne da rey julit yaa ko tey sa fee mooy safara yàlla neen yu tamit neen salaa sam nee na E, al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadi yàlla na yoon ci neen sala nee na jullit mooy koo xam ne jullit yi mucc nañ ci làmmiñ ak ci loxo bu mu wax lu bon bu mu def lu bon bul yàqal nit ci sa loxo sa gémmiñ bul yàqal nit rawatina yàqal ko liggéeyam bul yàqal liggéey nit nit mukk liggéeyam bu ko def lu bon boo déggee ñu koy wax lu ñaaw taxawal di fen ko bul nangoo déglu mukk ñuy wax julit nit lu lu bon nga taxaw di ko déglu déedéet taxawal di fen ko bon al man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne julit yi mucc nañ ci làmmiñ ak ci loxo mbokk yi fàttaliku ne amoon na bés boo xam ne da nga juddu woon say mbokk yëpp kontaan wulita baakiyan wa naasu yabkuun wulita baqiyan wa nas yadhakun moytul nga fatte bis bi nga xam da nga juddu nit ñange re yow ngay joy bay sa xel ne da nga war taxaw nga liggéey nga liggey nga liggey ba nga xam ne bis bo joge fi nit ñaa ngay jooy yow ngay re bay sa xel la gor gor lu nga selal jema la fexe lu baax gor gor sa xol bi jembeut ne mana war liggey mu bu yalla neena dem leen ngeen liggéey ngeen dund dem leen ci kaw suuf si ngeen liggéey ngeen dund fexeel mukk bul nangu sàggante bu nangu nga sàggan bul nangu nga ñàkk si nga ñàkka liggéey dafa yóbbu ci ñetti mbir benn mooy nga nga nekkoo xam ne ngay am malal mooy nga nekk xam ne doo bàyyi xel dara doo jëriñ dara ci xeet nga xam ne dangay toog di xoole doo jëriñ dara ci xeet xataa bu fekkee bàyyi ne ko fi këriñ sax mëno ko jënd këriñ sax mëno ko jënd këriñ ñu ataay mëno ko jënd lu nekk nga taw di xaar bay bu ko nangu mukk te lu ñak liggéey mo koy waral bul nangu nga nekk ko xane nga soufé rasul mooy ko xane nga soufé nga xamne kenn la xool kenn la bàyyi xel lu ñuy def rek du ñu woori ndax yow ñëw nga wala ñewlo waye bul nga nekk nga am nga am lu ñu woyé faqru yonent yàlla muhammad nee na sala salaam kaadal faqru an yakuna kufran tuuti ko noonu rek ñàkk nekk xéeféer ñàkk gis nga ñàkk baaxul yàlla na ci yàlla musal moo tax daf ko daan ñaan daf daan ñaan yàlla daan allahumma aisna min al faqri yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk yonent bi nee na Muhammad nee na tuuti ko noonu rek nit ku ñàkk nekk xéeféer Seydina Ali karamallahu wajhahu nee na law kaana al faqru saxsun la qataltuhu Seydina Ali nee na su fekkoon nga xam ne ñàkk jëmm la woon way xool naa ko rey ci naa li nee na bu fekkoon ñàkk rab la woon wala nit la woon koo xam ne dama koy xool damay dem rey ko ndax ñàkk jeex yàlla nañu ci yàlla musal ñàkk baaxul coow problème yëpp ñàkk la jafe-jafe yëpp ñàkk la xuloo yee xeex yëpp ñàkk la et am na ko ñuy wax ibnul xayim al jawsi mu ne wa kam tara min rajulin mutawarriin an al fawahis wa dulam wa lisaanuhu yufri fi araadi naasi ahyaa wal amwaat ibnu xayim mu ne ibnu xayim jawsi mu ne bari na nga gis nit koo xam ne dafay baax nangoo julli nangoo oor saraxe lu baaxu nekk mu ngi koy def lu tooñ kenn waaye nag gémmiñ nga du ko dee téye ci jëw fu mu toll mu ngay jëw fu mu toll mu ngay jëw jëw moomu dana dem ba nga xam ne yow danga nga dem koo xam ne sax ab saay saay la sax yow yaa koy dugal àjjana yaa koy dugal àjjana ci naka yow yaa koy jëw di ko jëw di ko jëw ba nga xam ne di ko ba nga xam ne boo demee ba buntu àjjana nga war a dugg dañ lay break suñ la breakee diw sàngam yaa ko yaa ko tooñoon mu jël see tiyaabo di ko jël di ko jël di ko jël ba sa tiyaabo yi jeex su jeexee lu ñu xew ñu jël bàkkaar yi jóor la ko nga daagu dugg safara nga dem safara yow mi nga xam ne yow yaa set yaa ngi góor góorlu fexee na góorgóorlu ba mu continuer te bu ci nangoo di boole jëw ibnu xayim ne na am na koo xam ne da ko dee gis dafay baa dafay julli dafay oor dafay saraxe moytu tooñ waaye nag du bàyyi nit ñi <clears throat> ci seen jàmm ci gémmiñ wax lu bon si nit ku dee ak ku dund di jëw ba jëw ku dee di jëw ba jëw ku dee am na ku ñu wax euh, siraas yi siraas yi mu ne dafa am benn bés ma ànd suma baay ñu dem ci benn place ci benn jàkka ñu commencé naafila time boobu booy tukki booy tukki ci dëkk xamuloo foo jëm soo demee ci jàkka ji fay fanaan mu ñëw fanaan ci jàkka ji mu ne bi mu tëddee ji mu gis ñoo xam ne ñoom ñu ngi toog di waxtaan di xaaxataan ci bor bële moom mu ne mu julli di julli ba mu yàgg mu seen ñeneen ñu ngi nelaw mu muy wax bàyyam ne ko yow ba suma bàyyi ñii de suñ jógoon suñ jógoon julli moo gën si ñoom bàyyam ne ko bàyyil bàyyil bàyyil utrukil xalqalil xaaliq bàyyil mbindeef yàlla bàyyi leen ak yàlla subhanahu wa taala bàyyi leen ak yàlla kooku ne ko lan ñii tëdd tëdd ñu nelaw nii su fekkoon dañoo jógoon julli de moo gën fi ñoom ne ko bàyyil nit ñi ak yàlla moo gën nga nga dugg seeni mbir bàyyil nit ñi ak yàlla danga gis yomal xiyaam koo xam ne dafa julli koo xam ne dafa julli bu baax di oor bu baax di génne asak bu baax yowmal xiyaam ñëw nekk loxoy neen sifr yaati yowmal xiyaam sifr bi mu nekk àddina daf doon di oor daf doon di julli daf doon naafila di saraxe waaye yowmal xiyaam dafa ñëw nekk sifr ak loxoy neen li ko waral mooy bàyyiwu deri nit nañ bàyyi deri nit ñi loolu loolu yëpp nekk lu éeme ngir ne feeg yaa ngee jow da nga toog dugg si lu bon bon mbokk yi al mooy nga ñàkk a bàyyi nit ñi ak seen jàmm foo toll yaa ngi ci nit foo toll yaa ci doomu aadama yi Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam nee tuuba tuuba liman saxalathu uyubahu an uyubi naas yonent bi sallallahu alayhi wa kii de texe na ko xam ne ay mbiram a ko itteel ba du wax mbiri jàmbur wallahi boo doon xool sa bopp du seet li ngay def ci lu bon billahi doo wax kenn mbiri kenn yonent bi nee koo xam ne Touba ci taxe na koo xam ne daf ko itteel mbiri boppam yi ba du wax mbiri jàmbur bon mbokk yi nit ki war naa góor góorlu ci ay mbiram ba nga xam du wax mbiri boppam yonent bi ne sallallahu nee na wala tatabi awraati naas bu leen di topp mbiri nit yi di ko seet bu leen di seet secret jàmbur yi bul lee seet lu bon nit yonte bi nee koo xam ne dangaa topp mbir nit yi di ko luqati di ko luñe di ko seet yàlla topp sa mbir te ku yàlla topp sa mbir dana la weer sa biir kër yàlla ñu ci yàlla bi nee sala sam nee na eh, bul dee topp mbiri aadama yi di topp seen mbir ko seet di ko seet oto yaa mbir nit ñi di luqati di xool nit lu mu defar lu mu fu mu jaar yonte bi nee koo xam ne nga def yàlla dina yàlla dina seet topp say mbir te koo xam ne yàlla toppatoo mbir dana la weet sa biir kër gàcce biir kër yàlla na ci yàlla musal bon mbokk yi tey nag ñun am nañ lu ñuy wooyee journal yi ak téléphone yi nga xam ne lu bon li yëpp ñoo ko amee li waroon a xew mooy téléphone bi da nga ko waroon a amee di ko téléphoné pour say soxla ku la soxla oo la koo soxla oo ko waaye tey li ci xew lépp lu ñaaw mu téléphone yi lépp lu bon mu ngi ci lépp lu bon mu ngi ci ñu jël ay journal di ko bind suur naa ci dëkk bi of saawara nangam nangam kii bu mën a doon ñoo xam la fa nekk yëpp mooy looy def demal nga topp imaam fu muy dugg nga xam ko xamal ñaata jabar la am ñaata doom la am lu muy def xam ko bind ko ci journal bi sarraf ci dëkk bi lii mooy suñu soxla tey te foo nekk rek yaa ngi seet lu bon ci doomi aadama nga bind ko joxe ko ci biir dëkk bi moo xam journal la moo xam téléphone bi la ana islam ana yoon yonent bi nee na sallallahu nee koo xam ne yow mbiri nit ñi moo lay téel lu ñaaw moo lay téel ngay topp moom ngay topp yàlla dina la ko def te bu la ko yàlla defee weer sa biir kër yàlla yàlla mosu ñu weer ak biir kër mbokk benn borom xam-xam nee na lisaanuka laa taskur bihi awrata imriin fa kulluka awratun walin naasi alsinu yàlla benn borom xam-xam nee na sa sa bi sa làmmiñ bi bu si topp awraay nit ji foo toll yaa ngi ci awraay nit ñi awra mooy lu ñaaw ñaaw defi nit ñi foo toll yaa ngi ci awraay nit ñi di wax di wax di wax di wax di wax yow benn gémmiñ nga am yaw sa yaram bi yëpp awra la yow sa yaram bi yëpp lu bon la wala naa si alsi nit ñaa ngi am nit nit ñëpp nga am làmmiñ masalan yow yow miy wax benn gémmiñ nga am pour wax waaye àddina bi yëpp ñu ngi am làmmiñ bu na wax sa kaw dina dëgg mbokk yi dañ bàyyi wante xaat xel tax gis nga jëw wax lu ñaaw moo gën a gaaw pour tasaare àddina bi gis nga tey léegi léegi rek benn wax bu ña daw koy wax rek ñu ñë àddina bi dégg dégg ko benn yoon ñun nag Gambie dañu am lu ñuy wooyee eh, lu ñuy wooyee Watson Gambie Watson Gambie Watson Gambie lépp lu ñaaw lu bon mu nga foofu nga bind nga seen àddina bi gis ko gisatoo ko benn yoon lu ñaawal ñu lu bon a lu bon a bon a bon nit ki da nga war a defar ab journal pour loo xamutoon ñu waxal la xam-xam xibaar bu leer ñu waxal la waaye lu ñaaw rek loolu kay go ñu wax ko son Gambia lu ñaaw rek a fa nekk lu ñaaw bon nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi war xel kayit yi ñuy bind nañ ci bàyyi xel téléphone yi nañ ko bàyyi xel téye leen téléphone yi nga teg ci lu baax dem nañ ba nga xam ne sax sa téléphone bi yow sa téléphone bi wallahi ñemewuloo ko woon kilifa billahi ñemewuloo ko sa téléphone bi nga amé amee ñemewuloo ko won kilifa lu tax lu tilim lu xisal fa nek mbokk diñ bay war xel ñun mënu ñoo nek lu moy ak ay muslim du neex dañ nek leen lu moy su muslim muslim lañu nek gannaaw ay jull lañu nek nañ fexé def def jullit nañ fexé lu ñuy dekk nek lu baax nañ fexé ni ñuy def na nekk lu baax waaye suñ ne jullit kenn la gis suñ ne affaire islam kenn la gis nit ku baax ku la oo ci loo xam du islam nga daw ko gabañ waaye ku la oo ci islam dafa nga ëyu ñun nag dem nañ ba benn benn yi nga xam ne ñu mën yàlla dénk xaalis tuuti ñu am xaalis tuuti am na ñoo xam ne lu bon rek mooy seen soxla samp ay kër samp ko lu mooy ak jël ay xale yu jigéen di leen fa dugal dugal fa xale bu jigéen ay ay ay benn semaine ñaari semaine kenn du ko gis doomi jàmbur te doo ko def sa doom mukk dem nañ ba ut ay fecckat school yu bari tey school yu bari school yu bari tey ñu ngi jël doomi jàmbur xale yu ndaw di leen solo ay yére yu gàtt leen tëj tëgal ñuy fecc ñu ne school lañ dee am ay fecckat te ña koy def duñ def duñ defal seen doom yi de ña koy def ca school seen doom du ca bokk. dem nañ ba boroom alal fii samp këram def fa lan swimming pool pour lan xale yi jigéen dafay ñëw di fecc góor yi ñàkk fayda ba am ñàkk fayda da ngaa dem fay nga toog di xool xale bu jigéen buy fecc ak yaram neen ma ñun fuñ jëm ñun fuñ jëm ñun fuñ jëm ñun fuñ jëm xalaa ñun ñëpp yàlla paak njugaluñ safara wallahi kuy mucc ku ñàkk a dem safara time bi toll nii ñàkk dem safara bari wut de benn benn ñoo fi des ñoo xam ne àjjana ñu dem ñëppay dem safara ñëppay dem safara lu tax lu bon lee bari lu bon li moo bari trop kenn mënu koo wax kenn mënu koo wax xoolal mbooleem xeeti mbon mbooleem xeeti mbon mu ngi si ñun ñun ñii xam nga lu baax doo ko jege doo ko jege ku la oo ci dén doo ko uyu suñ ne nodd fii sa nodd sax bu deen nodd sax problème la da toog ba time julli jot doo am ko ne allahu akbar nodd ci luñ nekk waxoon naa ko ma nañ defaraat utin bi nañ koy defaraat nañ utaat outil bu rafet li ngay ut lu mu bëri bari bari da nga ko fi bàyyi nga dem nga deeñu suul la ak li ngay ut lu mu bari bari bari ànd cee sa sago àndal sago loo ut ut ut ut ut billaahi danañ jël benn bés ñu laxase ay sagar yu weex yu ñàkk fayda gas ab bax suul la fa romb la fa dafa ana xaalis bi fi amee woon dem na bàyyi ko fi def bu dee kër la bàyyi nga ko bu dee jabar ju jabar la keneen ñëw takk sa jabar bu dee jëkkër la keneen jël keneen ñëw fee sa jëkkër bu dee ay moto la da ko fi bàyyi bon nag nañ bàyyi waat xel outil bi na rafet nañ seet outil bu rafet nañ ut te yàlla tax waaye buñ bàyyi yàlla mukk subhanahu allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد <coughs> كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يسلمون أكبر سبحان ربك رب والسلام على المرسلين والحمد لله أكمل السلام